asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi jàkkaarloo noonu di ñu seetaan euh, tey jii ci talaata ji yamoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru koor euh, commission bi nga xam ne mu taxaw lépp lu jëm ci wàllu weer wi ci njiitul sëriñ Moudou Mamoun bu sa imaam waaye feggoo ak sëriñ Abdou Diop imam sëriñ Bachirou Mbacke <clears throat> sëriñ Abdoul Khoudous ci Daarul Mooti ak commission bi nga xam ne ñoo féete Dakar ci Ahmed Iyane am nekk fa ak bokk yi nga xam ne ñoo féete Bakel ak li ko wër euh, saa yu weer wi teroo danañ àndandoo ñëw ci soowu jumaa ji ci tëli Alaaji Babacar Kébé Ndiouga ngir séntu weer wi euh, tey jii nag ci ñaar fukki fan yi ak juróom-ñeent maase nañ seentu weer wi bi ñu ko gis gis nañ ko itam ba suñ borom dogal na ñuy jokkoo ak Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha moo xam le ne kon suba ci àllarba ji mooy doon benn fan ci weeru kor wi kon ñu jàpp ne kon weer wi feeñ ne fii ci tubaa ak li ko wër ci talaata ji ci atum 1440 ci gàddaay gi e, suba ci àllarba ji di korite kon ñoo ngi sant jullit yëpp di leen wax kullu aamin wa antum bi xayri di ñaan borom bi subhanahu wa taala yal nañu yàlla nangul suñuy koor nangul ñu suñuy jaamu yàlla jëggal ñu rëcc rëcc yéen ci def yëpp di soññ jullit yëpp nag ci ñu xam ne fii weer wi feeñe lañ bëgg muuri koor yi génn ko balaa suba ñuy dem ci jullikaay ba muurum koor bokk yi kenn du ko fanaanoo waxtu wi nga déggee ne weer wi feeñ rek ci nga ko war a taal génne euh, bokk na ci li nga xam ne moo gën ci ñu di ko génne it mooy la ëpp ca la réew may lekk kon bu dee fii ci Sénégal bu ñu mënee génne ceeb wala dugub mooy li gën loolu it mudd mi bu ñu ko xaymaa dana toll ci ñaari kilo ak liibër yaa ngi koy génneel nag ki nga xam ne yow la ab dundam war muy doom joo jur ak soxna soo yore ak sa ndey bopp joo xamante ne bii ak sa way juru góor woo xam ne amatuñu kàttan eh, ñooñu yaa leen war a génneel eh, muurum koor bu dee doomit bu demee ba mësër ba am soxna ba war a mën a génneel boppam moo koy génneel boppam waaye ku ko mën a génneel bopp ci ñii ma la wax ñëpp yaa lañ war a génneel muurum koor yaa ngi koy génne nag ci ñaari kilo yi ceeb ak liibar wala nga xayma njëg nga génne ko waaye daal bokk na ci li nga xam ne moom la ci yonte bi alayhi salaatu wasalaam jàngale mooy fii nga gisee weer wi lañ sopp ci nga génn ko ba dañoo dem ci jullikaay ba ndax wax nañ ne boo jullijee ba ñëw génne muurum koor sarax lay doon waaye du doon muurum koor kon nag yal nañ yàlla nangul suñu jaamu yàlla yëpp eh, seen bokkum taalibe Fallou Gala Syll wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu